mi ngi nii ana ana micro bi. ah oui oui xam naa ko. Aïcha surprise lay doon ah nañu ko nañu ko nañu ko déglu nañu ko déglu. eh waay. yokkuma. Musa Fatou du fa jàmmalaay. muqaddis bu xaali daaw dunduy fii ci Cambérène maami Sëriñ Useynu Laay maami Ibu Seyni Caw Laay ak Bas Laay ba nasaraan baa ngi wuyoo Laay Mamadu Mataar Laay jaay tey ma baak ñaak gaynde jaay moo di léegi léegi léegi léegi léegi Djibril Diop ma bëgg ngeen tàcc ko dugg si na seen biir kër ah surprise laa ko bëggoon def euh, pour ñi nga xamante ni ñooy seetaan mais nuyoo bi ba léegi pareegoo ci euh, ñu ngi jëm ci appel bi dinañ ci wax ak yow euh, li nga woy seet naa li ma am itam defe naa toj na dëkk bi mais dama bëggoon nga def deuxième nuyoo ndax nuyoo benn yoon baaxu ci ak bongo yi muy deuxième nuyoo ah waaw demal ñu waali ju fey xare sa coor coor ku fa yóbbu buum ku fa yóbbu buum dar ko sa lañ la yeew mm. way daan nga leen daaw daan nga leen jël bu kenn dootul miim gawloo boo leen daanatee war leen a mën a duma si sambirim ne la mi san borom jaami wàcc ma daan naa la wóoru am daru mbaar maa jorog ma taar ma jama yaasin ma dawar mi ci looro sugu paate gamba paate ilimaan duray ba Mm. yaa day soxna boobu la ñuy woowee yaay ja maar ngoone yaasin maar birahim yaasin maar sirey sa maam doonay maam mari seen baayu sena bakk naa la baayu mari ma New York waaw nee leen ki la teete ba tollu fi nga tollu loo koy def bul ko moo la wan yoon we eh, soxna bu mooy yaay ja nee leen gawlo yaa ma wan yoon we ki la teete bi nga tollu bi nga tollu galla bu ko ma tëj ba dara doonu leen dara ñépp daw ma mesi mee teng duuba laa gisoon mu wan ma yoon we ki la teete mm. bi nga tollu biram di la bokk su amee oto yóbbaale la ma ni yiyaatee ma ni ko soo ma newul su ma neetee dinaa ko ni woko woko woko wiiraam di la bokk so amee ko yóbbaale la Boubacar Mbergan yaa ma wan yoon wee waa ki war na maye 1000 francs bu xootee ko. Abdoulaye Daru Mbaar yow. waaw. maa joro ma taar. ak ma jam bi ci laaro mm. ilimaan du rey seen baay yaa nda soxna boob la ni woowe yaayam yaay rakk yu suma jigéen dóor bàyyi biraan dóor bàkk naa la yaag sa gàngo Sénégal se raawun saam ndeysaan biram di la bokk soo amee oto yóbbaale la gawlo ma gawlo yaa ma woni Boubacar Mbergane kon bu ko fontoo yaay booy mbergaan yaa ma wan yoon we ewaay eh kenn du la fontoo bu rëy piccee seddi la ca bu rendee ñey nga bayal ndawal eh wax leen gawloo yaa ma wan yoon we ah. boo ma jëy de sama nit nga borom campement njaxoox wax leen gawloo yaa ma wan yoon we sadiw bisu way gawlo ma gawlo yaa ma wal yoon we gawlo ma gawlo moo la wal yoon we tey sax na mooy yaay jaa yaa ma wal yoon we gawlo ma gawlo moo la wal yoon we wax leen gawlo ma gawlo yaa ma wal yoon we kon gawlo ma gawlo Pape Cheikh Ndiaye oh, la yaa nu wan yoon wee. gaw la suñu moo la wan yoon wee. kuy nelaw na nga yeewu wey gaay yi yeewu leen yeewu leen jóg naa gaw la ma gaw la. moo la wan yoon wee. ilimaan mooy baay ba ndey soxna boobu mooy yaay ja wax leen gaw la yoon wee. ah. jërëjëf ñu kontaan ci yow. nga woy Boubacar Mari Sène Mao ndeysaan